joxe woon ma ba mu jeex tàkk. joxe woon ko ba mu jeex tàkk. ndaw ko laa jërëjëf. ñu ngi sant. bennoo bennoo. seep Sidi Mouhamadou Bachir. mag mag ak ndaw. imaam ba suñu magam taalibe bi. jiite mag ñi. nee na jiite mag ñi. maam Seet Dramé. maam Seet Dramé. ak moom mag ñi bi yëpp. nee na xolam. si lislaam. si lislaam xamu si frontière. ndaw ko ndaam maa sant ndaw mu ngi sant da ngeen ñaanal ma yalla da ngeen ñaanal ko yalla ba mu xatta ba mu am kàttanu Cheikh Ibrahima Fall dogal Cheikh Ibrahima Fall ligel Cheikh ibrahim Fall dina roy so bay baay royu si Muntaxa royu si Sidi Maki Cheikh ibrahim lay roy ndax man na tek sen place neen dal la gëna ci yalla ne billahi billahi neena mostu ñaan cër si ndaa yéen a tax de nee na yéen ndaw ko ndaa yéen a tax de bëgg mu xam ci yàlla si yàlla dara ne nekk jaam alaaji basir rek may ñaan benn cër nee na mos ñaan benn cër si àdduna nee na su fekkee àdduna nee na yàlla bu mu fanaan loolu mooy mat ak taalibe nee na loolu mooy mat taalibe sa sëriñ dañ ne bul toog ci sijaadaam maqaam mi mu toog. nee na kon looy ñaan maqaam mu may toogee. xottu la bokk nee na kon ndokk naa kon jërë ngeen jëf. bismillahi rahmaani wa sallallahu muhammad wa sallim. wa ala alihi wa aswajihi wa suriyatihi. wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di sàkku ci waa tant bi ñu dal te déglu xam ne guddi gi dem na ba pare te li ñu fi indi mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag du ànd ak leneen yàlla nag ku soppi yaa soppeeku inna laa laa yuxayyiru maa bi qawmin hattaa yuxayyiru maa bi anfusihim bis bu ngeen soppeeku loo ko seen bopp yàlla soppi leen kon nañ nekk jaam yu dal gëm ne barab bi ñu ñëw dañ fi jaamu yàlla gëm ne guddi gi mën na nekk suñu guddeeg texe ñu dee tàbbi àjjana na daan Seex Salaam doom moo ko wax képp ku farlu ci màggal rasulullahi sallallahu alayhi wa sa texe ci nëbbi wu sallallahu alayhi nekkul lu ñu nëbb kon nañu bàyyi xel suñu bopp bu baax nañ dal te déglu maa ngi wax ci sama ndigalu mag sama ndigalu kalifa Mouhamadou mu ci ba ndaw moom mi nga xam ne mooy njiit ak jotaay bi sant ma ma présenté mbokk yu mu àndat mbokk mi nga xam ne foo gestu seen Mouthiba Ndaw boo gestuwaatee seen leen kon mu nekk ànd ak saayir ak ànd ak baatin te yàlla rek tax njilaw yoon wi nag mooy borom guddi gi ki nga xam ne moo ñu war a diggal ci suratu nabu yi mooy Mouhamadou Mouthiba Ndaw ibnu khalifatu basiru omar ndaw yalla fi yalla yagal lol te wér kep ku ne ci tante bi nga wax ne xalifa basiru ndaw yalla fi yalla yagal te wér te may ko jam moy suñu jam dalam moy suñu dal wiram moy suñu wér ku yalla jox mel bul mu diko saaba yi nak dañu sagan di ñaan rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallam dañu sagan di ñaan nabihi Mustafa sallallahu alaihi wasallam kon ñun lolu bu ñu dal ci kilifi gi yalla te suñu karam lañ di ko ñaanal ku tegee si ci yoon wi moy muhammadu abdullah ibnu Khalifatu basir umar Daw moo bi nga xam ne moo ñu fasene jàngal faydu min fuyudillah min al min min minallahi ila laa yu war daw faydu anwaar bi nga xam ne kenn xamutoon lan mooy faydu anwaar kan moo ñu xamal faydu anwaar kooku mooy alaaji Umar Ndaw mooy asmaawullahi usna wa kan moo ko war a jàng ci tànt bi leere di wàcc ci kaw penku xarafu suñu suuf muy Abdoulaye mii kon nañ ko bàyyi xel. keneen ki ci topp mooy jàppu xew bii di wax ak di Mouhamadou Bassir ibnu Seydi Makki rahmatullahi alayhi keneen ku ci topp mooy Seydi Makki ibnu Xalifatu Bassir Omar Ndaw yàlla fi yàlla yàggal lool te wér keneen ku ci topp mooy Mouhamadou Fadil. ibnu xalifatu Mouhamadou Bassirou Omar Ndaw yàlla fi yàlla yàggal lool te wér keneen ku ci topp mooy Mouhamadul Amin ibnu xalifatu Mouhamadou Bassirou Omar Ndaw yàlla fi yàlla yàggal lool te wér keneen ku fi topp mooy Seyidu Mahali ibnu Seyidi Mourtada Omar Ndaw yàlla fi yàlla na lool te wér mooy borom rajo bu ne Abdoulaye tuddoon na ko ñu ngi ànd ak suñu mbokk taale bi ak suñu jarbaat Mouhamadou Moustapha Diagne sët la si xalifa Basiir Mouhamadou Kaay Touré sët la si xalifa Basiir ànd ak suñu mbokk taalib yi bayee ko poos Ali ak ñu ak Aliou ak suñu mbokk taalibe yu bayee ko kër Baara ànd ak suñu mbokk taalibe yu bayee ko kër Samba ni ki Basiiru Njaay ak Muntaxa kon lii mooy yoon wi ak xale yi nga toog ñëpp taalib lañ si kër balaa ñuy wax lenn na wax ji nga xam ne xayru maxluuq benn wax rek moo nekk xayru maxluuq beneen bu dul loolu maxluuq nga tamay waxu yàlla subhaanahu wa taala kon dañuy jox Seydi Fadil mu jàngal ñu alquraanu karim ñu ubbee ko jotaay bi kenn ku ne ci ñun kii wax day jotali waaye ñu xam ne kalaamullahi la yi ngi tamay wax yàlla subhaanahu wa taala kon nañu tekk ànd ak dal te déglu